Yuba Sambou, c'est un plaisir de vous retrouver. Messieurs les ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, mes chères dames, jigéen yu jàmbaare ay Aline Sitoé yi fi toog maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam may nuyu autorité coutumière ak kàngam kilifa yi fi teew yépp may nuyu les responsables des organisations nuyu la presse bi ñu tàmbalee ba tey bàyyiwu leen yaa ngeen suñu wet te ñu fas yéene ko continuer ba samedi incha allah discours bi nag du yàgg ndax fii ñu toll du heure wax heure jëf la ñu nekk heure jëf la ñu nekk jàngoro bi góom bi ñëpp xam nañ ko soobee yàlla bu samedi ñun fast track la ñu xam président Macky Sall loolu la ñu sant kon nag samedi ñu daje Ziguinchor ñu def joxe financement yi liggéey bi tàmbale wax bi fin bu ñu dajale waat mu fekk yeneen ak yeneen la yokk xanaa neex kontaan ngeen bu kontaan na bu bàyyi ba samedi bàyyi leen ba samedi ñu def ko ndax ñëwuñu fi di jaabante ñëwuñu fi di expliquer dañu ñëw ànd ak ministère bi yépp a képp kuy directeur ci ministère bi yaa ngi fi naa ngi ñii ci ma ginnaaw DG wu Fonami ñëw ñu mànkoo ñëw saytu ñëw xool bu ko defee ñu mën a ci dañ koy wax ci li ñu man ñu tàmbali jigéen bi bu ko defee ku ci nekk mën ci gis sa bopp waaye du fi yem lu ñu jot a mën a lu ñuy am na yeneen instrument ndax jigéen ñi dégg nañ seen ñaxtu ci bloc maraîcher yi jigéen ñi dégg nañu seen ñaxtu ci unité de transformation yi jeunes yi dégg nañ seen ñaxtu mu am nag li nga xamante ne gis nañ ko fii muy dal xel su may dégg organisation bi am à travers les coopératives communales à travers les fédérations des femmes à travers aussi les fédérations des jeunes et ça c'est bu ñu àndee organisé wu kuy ñëw di ci teg loxo dañ ciy gën a sawar parce que dalay leer ni dërëm boo ci dugal dina am impact te looloo ñu tax a jóg loolu la ñu son excellence le président sant te dinañ ko liggéey bu soobee yàlla ñu ànd bu kenn nekk ci ginnaaw keneen nañu ànd ñun ñëpp ko tàkko songandoo xàccandoo dóorandoo jërëjëf